ñu ngi fii di Grand Médine banlieue 13 buñ ko waxee nag seet ay ndaw yoo xamante xam nga dañoo nekkoon ci benn yoon yàlla sunu borom jëla leen ci yoon boobu noonu tey nag ñu ni pourquoi pas waruñu ko mën teg ci société bi ñëw pour xaawi sutura nit ñi mais dañuy ñëw pour waxtaan ak ndaw ñi xamal leen carrément yoon bi kat nee la du nii nag tàyyiwul benn yoon aussi tamit ubbil nañ ñëpp suñuy porte képp koo xamante yaa ngi dund jafe-jafe parcours bi mu di caatu piol bi mbër maa ngi lay nuyu. nijaay maa ngi lay fay di la jox sa waajuwaay di la dolliwaat siyaar bu baax di nuyu ñëpp nuyu àdduna waaw di santaat ñëpp nuyu mafia bi mu fekk nii waaw di santaat waa Grand bu baax di santaat waa Grand bu baax a baax a baax. Mhm. kan mooy caatu piol bi. waaw caatu piol doomu aadama la benn mbër la rek nekk si koñ bi boo déggee nag piol bi nag mooy koñ bi ma dëkk la piol bi. samay grand frère ñoo fa nekkoon di tax ngemb ma gën si nekk xale ñu jël caat bi jox ma ko ñu tuddee man nag caati piol bi looloo indi caati piol bi. Mhm. d'accord bi da nga ko doon wala da màgg dugg ci wala affaire de jeunesse la. non bëre bi dugg si mun naa ne benn nijaa bi bëre laa am mais Abdourahmane Signor. waaw benn nijaay bi bëre dong dong laa am muy kooku man bëre dama ko fooyee man dama ko fooyee dama ko dund si mbapat bi waaw. Thiat mu ngi si ñaari combat man maa ngi si sept combat ñaari defar laa si am. Mhm. d'accord yan jafe-jafe ngeen ñu dund Alaya bi nii ci làmb. non Alaya bi moom jafe yi ñuy dund moom métti na méttiwul ndax lu tax ma na méttiwul ndax heure bu ñu amee combat rek yàlla mu ñu ñu si taw feex lu mu métti métti métti yàlla fu ñu si taw tawféex barki maam Seera Fall ma yaakaar xëy na tamit jàppale bi xaw na des rek. waaw bu ñu amee combat day xaw métti su ñun lool te fii ay jàmbaare fi ne ay champion ñoo fi ne Alboury moo ngi fi Étoile ngi fi Bombole ngi fi Dalbone ngi fi. ndigal sama seex bi barki maam Seera Fall gars yi bëri ñoo ngi fi ay agogo Tafa Maada. booy yu ndaw booy yu bëri ñoo ngi fi. billaay wala ay ama booy yu bëri ay caati wuuteeg alu. wax ne jàppale rek moo ñu xaw a manqué. billaay wante dara bu dee entraînement ñoo ngay def bu dee lekk ba suur ñoo ngay def naaj te bu ñu amee tam tout le temps que noonu la ñu siy sonnee. billaay wallaay wa taalaay. d'accord en dehors làmb ji lan ngay def. man mën saa ñoom. waaw maa ngi si mën saa ñoom bi nu tamit sama patron Diop. maa ngi koy ziar ba ak sama kër sa père Maguette Mbaye. di ko ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér bu mu fekkee njëriñ bi incha allah rabi. Euh, Thiat euh, am moment yoo xam ne dañ ko fi déggoon ci affaire accusation mooy coowal drogue ci yu noonu waa ndax mën nga ci ñëwaatal loolu nan la demee woon. waaw loolu moom benn fët bu ndaw la woon waaw benn fët bu ndaw la woon rek wax fa dëgg yàlla affaire yàmbaa la woon su loo xamante ne caat yoonam neeku si 2016 la woon sax dama ko fàtte sama mandat dépôt ànd loolu xam nga rek yàlla teggil nañu ko ñu koy sant yàlla bu baax waaw. pen bi ñaata la woon. pen bu korog la woon rek fekk presque boo xoolee lépp lépp trois ans la woon rek 2016 ba 2019. lan moo taxoon sa tour demoon ci loolu ci fréquentation bi la woon wala. non non si dimbali rek man xam man yooyu moom yaa ma gën xam man fii mooy sama lépp wax fa dëgg yàlla mënu ma am lenn lu dul fii ak mafia ba ak ak bopp coor ak fu ma juddoo Arafat si boppam. Mhm. man du ma fréquenté man fii rek laa am. su ma fi ñëwee ak ñoom bër ak ñoom su ma paree dem naa dugg sama gaal léegi ba su tëdd. loolu benn la woon rek di gunge aadama pour bu ñëwee ñu tàggali koog maa moom ñu dem ba téléphone natt bi foofu la ñu dalee. waaw loolu benn erreur bu ndaw la woon rek. bi la dalee euh, trois ans nga jékki-jékki ñu denc la ci ceel bi famille bi njaboot gi. waaw dëkk bi sax sonn nañ de ndax dëkk bi dañ doon ket chaque jour du dugg fu nekk pour caatu génn. billaahi wallaahi wa taala ñëpp si sonn sama yaay jantal maara noonu la si sonnee woon dugg na fu nekk dëkk bi tamit fu ñu xam dem na fi ku si mel ni tamit sama benn grand sama xarit sama lépp sama waaye sama turandoo Moussa Calaw noonu la si sonnee woon ñoom ñëpp dëkk bi booy ndaw yi garaam yi ñëpp si sonn di ket pour caat nu mu génnee wax fa dëgg yàlla. li mooy maanaam lan nga def wala lan moo fa yóbbu sa tur parce que dafa am ku ma doon gunge dafa doon gunge. naa leer sama noppi. sama benn grand laa doon gunge quoi. gunge ci lu mu doon def wala man xaw ma gunge naa ko ba kër gi ñoroon a dem pour mu jékkee deux mille jox ma ma ñibbi si la gars yi ñëwee dal seen kaw man xaw ma quoi yor na machine mu ne ma nañ ànd Dalifor mu ne ko wax nañ dem dem nañ ba Dalifor xam nga naka naka yooyu bi ñuy dem gars yi ñu ngi koy doon topp si biir topp bi noonu si la natt bi amee wax fa dëgg yàlla man boobu xale laa sax waaw man mun naa ne si kase bi foofu laa màggee wante sant yàlla bu baax. boobu yaa am ñaataat. boobu noonu boo xoolee ay 19 ans. ay mhm, man 97 laa ay 19 ans yooyu mun naa ne sax foo laa màggee wante sant ko yàlla laa def nag naaj. Mhm. tey sa enfance nga def ko ci jéel bi lan la jàngal. waaye dama gën a xam gën a ma gën a yeew xipp sama du xool bu baax gën a xam fu may teg sama tànk moo waral lii tey barki maam Seera Fall moo waral lii dama gën a nekkaat beneen caadu gën a xam billaahi. Mhm. ndax bëriwul loo xam ne yaa xam na la ko ci sa wàllu carrière aussi. xaw na ko tàrreel rek ndax xam naa ne bu nekk woon làmb ji bu nekk woon jeel bi kon instant yi weesu naa fii saa si làmb waaw kon dama kaa sante yàlla amante mënoon naa fi nekk tamit du ma tal sa làmb ji. mun naa nekk si pousse pousse wala sama tànk dam wala ma faatu kon instant kon fàtte nañ sax caatu te boobu noonu noonu la fa demee man su ma dugg woon jël gars yi fàtte nañ ma. fàtte nañ la ça veut dire. ndax dama doon demee allure bu bon. comme. non allure bu bon rek. voilà dama doon demee allure bu bon moom mii sax mun na ma seer ak sama benn grand Moussa naa dama doon doxalee allure bu bon. nekkoon ci yoon bu baaxul. waaw xam nga rek yaa ma gën a affaire da xale waaw. billaay wallaay foogoon naan boobu noonu peut-être bu asamaan bi doon def ni sama mooy loolu su ma gënee ni mu ma déglu waxu grand frère ma déglu kenn mun naa génn sama boobu déglu ma woon si làmb ji si mbapat laa nekkoon noonu rek di foo boobu dund ma saa sax làmb kon nii. billaay wallaay wa taalaay xeex ma gën a loon sax kaay lekk su ma génnee sama kër 7 heures 5 heures laay dugaat suñu kër sama yaay daf may wër ba sonn. waaw loo tax man kaso bi daf ma dimbali bu baax sax su ma tëddee nelaw ba yow balaa may sulma damay santaat yàlla xam ne man kaso bi daf ma dimbali bu baax su ma si dugul woon damay faatu wala sama tànk dam wala ñu may teg si puus puus du ma puus wallaay azim sama yaay fu mu dem loolu lañ koy wax santal yàlla bu baax sa doom fu mu dugg ne wallaahi. benn yoon boobu nga mos sant yàlla bu baax nag. bi nga génnaatee war a jàkkaarloog say wayjur wala jàkkaarloog public bi aussi tamit nan nga ko doon dundee. non dama génn. génn bu daw yaram waaw dama génn génn bu daw yaram seen kër fees dell caatu ñëw na caatu ñëw na. billaay wallaay wa génn bu fees dell génn bu daw sama yaram sax mag ñeg paay ku nekk di daw di ñëw parce que maam Seera Fall looloo ma gën a yokk jom ma xam ne man jum waruma liggéey rek ñaq jëruñu dimbali jantal maara kon ni sama grand bi waxee léegi bàyyi ñaanu ma ko yàlla sax tabaxal ay El Prise 4 ndax fu ma nekk dafa dend ak jàq ji faag ma tabaxal ko kër gi yem rek ndax bëgguma tamit xam nga kër gi di xaw a suti jàq ji yenn suti yi man jomm mais bi nekk R plus 1 sax defar ko noonu lu ma nar a defaat kër gi du yokk ma def ko si jàq ji sax moom ma ko gënal voilà ndax loolu dama ko yàgg rêvé bu may nekk kaso su ma nar a tabaxal sama yaay R plus 4 bii tiim jàq ji yàlla na nelaw kër gi mbaam si kawam waaw man man sama xol mayu ma loolu quoi. Mm-hmm. te lan ngay wax ndaw ñi nga xam ne dañu jël yoonu banditisme xam nga di agressé di def na ko su dul noonu. nañ ko bàyyi. waaw amul sens ndax kaso bi dafa metti léegi deux mois sax bu ñu la ko tëjee dañ lay nga dem sebi kaso bi dafa xat dafa metti lekk bi demee fa noonu. billaay wallaay wa taala suñuy morom dong ñooy naan jaaral nii nangam taalal defal nii. Hmm. billaay wallaay amul baax amul faal amul jàllo présent à l'appel ngay wax. barki maam Seera Fall ay un vie yoo xamante ne xam nga demeewu fa noonu ñoo lay jàpp di la manipuler defal ni da la sotti ndox te tamit di wax tamit dootu nii tamit nañuy déggal tamit chef de gendarmerie chef de gendarmerie de yeneen saa da ngay dajante ak yenn yoo xam ne dañuy dëgër bopp da ngay wax ak ñoom ñuy jéem a ñoo di bànn si biir néeg bi garde bu ñëwee nga déggal garde bi balaa caag chef de gendarmerie bu leen nee yemal kay yemal néeg bu neex. waaw chef de gendarmerie mënu léegi yow bu la garde ñëwee di wax ak yow nga jënd glace balaa caag chef de centre bi si la nekk bu la nee booy yemal rek yemal bu fa jéem a ñëw di bandi waaw. dund bandi moom nañ ko bàyyi tegee ko nële. tey lan nga ci doon rëcc loo xamante ni yaa ngi toog des fois ko xalaat loo mës a def ci enfance bi ci banditisme bi. noonu loolu man sama kaso bi rek laa rëcc. sama kaso kese kese kese kese. kese kese kese kese. kaso bu ma dund dong dong dong laay rëcc. te dama koy sant yàlla bu baax. voilà. bi nga la jàngalaat. lu bëri nee naa lu bëri la ma jàng loo tax instant mooy dëggal jubal leeral. wax fa dëgg yàlla barki maam Seera Faal. nga nekk ndaw yàlla dogal macha allah nga am kàttan ndax des fois doo toog nii mu xaw a dëgër sa xel nekkaat ci yeneen détails wala nga gis ndaw ñëwee ko dund aussi tamit ba sa xel di ci dem ak yooyu. non li nga wax ni lu am solo nga wax wan du nekk day nekk sama du ma ko sax jéem a def ndax damay toog di entraînement muy métti xam nga si biir entraînement bi. doole alal la. damay entraînement per di ma teg lu métti ma xool ko mu xool ma ne ko per loolu liggéeyu doy doole alal la. parce que maam Seera Fall man damay toog yenn saa yi damay sonn day métti man man du ma dem fenn damay dem jàpp ba sell dem dugg sama biir néeg toog soulagé wu di waxtaan ak sama yaay fàtte lépp waaw. dañ jël lépp teg ci loxo yàlla suñu borom bi mooy maye mooy xañee barki maam Seera Fall waaw. Mhm. combat yi fan lañ toll. ñoo nga doon wax Aliou Fat Fat. Aliou moom doo leen bëri yéen ñaar Aliou moom. Aliou Fat Fat non Aliou moom doo leen bëri yéen ñaar nag. wante loolu noonu làmb wax fa dëgg yàlla non xam nga tey Laurent bañu ma ko champion la jàmbaar la. wante Laurent boo doon ba xaaju guddi nga yee ko nga ne ko yow ak Thialy waa mbokk sa duñ ko nangu. dama ko xam. boo dama xam na ko. booy bi nii sax bokkuñu. booy bu ñu doon préparé combat 15 wala 1 mois nga xamante ne man ak booy bokkuñu waxtu mu ne nag ñuy préparé combat 3 mois jëm kaw 2 mois ba 3 ba 4 mois. gis nañ léegi dafa màgg. yàlla xam na ne booy maa leen gën a màgg fuuf man booy defuñ xam nañ caatu bu baax seeni grand frère yu leen wër xam nañ gan gi bu muy nekk fii lu mu doon sóo man damay sóo 500 bu may nekk si audio bi par 50 par 50 par 50 par 50. barki maam Seera Fall dama doon entraînement ba gardé nee ma caatu del ceer del noppaleeku man ak booy bokkuñu yàlla xam na ko yow xam nga lu ma lay wax bu baax billaay war dama leen gën a ñeme entraînement dama leen gën a dof booy tëdduñu paquetage lekkuñu jangaa man dama tëdd si paquetage ba sonn chambre 10. lan du affaire million nag. du affaire de million wan affaire dof la ak sañ-sañ ak xel mu sell si biir géew ak liggéey ñàkk jëriñu. tey bu ko na ñëw di daw peloton billaahi billaahi wallaahi dafa ma ko dama meñtee sama kaso bu mu jeex. billaahi employé sax génnu ma ko. man ma bëgg xamal ne booy tëruñu paquetage lekku ñu jàngaa maa leen gën a dof fuuf xam na lu ma leen di wax bu baax sama génération laa leen wax. billaahi wallaahi maa leen gën a ñeme entraînement maa leen ëpp sañ sañu man géew du ma si dugg di xalaat. ma jóge si defet ma jóge si am man arbitre bu nee prip may dox sa kaw damay raam suul samay tànk dox sa kaw. billaay wallaay wa ak fans tamit. waaye di bëggee ñëpp di si arat ñëpp fu fan nekk de. Arafat Grand Yoff ba 26. ba yëmbal. ba Pikine mën a nekk Arafat gu ma juddoo maa ngi bëggee ñëpp foofu sama fan si mën a nekk di bëggee caatu maa naan jaru ñuy yàqamte dara yàgg yàgg bawul dara dina neex dina yëngu. di ñaanal waa Grand Médine bu baax di leen ñaanal xam nga suñu mbëri dañ am làmb ku si mel ni étoile dal na ko yàlla may ndam dimanche bi lay bëree moom moom bàyyi na maa ko gis Côte d'Ivoire mi lëmbal rek waaw day dem def foo day neexal la wan day ñibbisi waat léegi di ñaanal tamit xam nga suñu Baye Fall yàlla may si kaw boosé jël bu rëy incha allah rabbi waaw di ñaanal tamit sama grand yi su si mel ni mbay Diédhiou Baye sama grand bi Malick Pata Maron Ndiaye mafia bi ñu fi fekk nii yëpp maa ngi ñaanal jàmm ñoom yaaw ñu fekkee sama njëriñ ay bras. kan mooy sa ménageur. man père As. As Cissé waaw mooy sama ménageur. di ko sant moom tam bu baax a baax. ak père Magu Mbay aw ma seen fay. waaw barki maam Seera Fall di jaale tamit suma xam nga. booy génn àdduna yëpp ku si mel ni segmenté ma dikkee aru moo Njaay Pune. gaa yi bëri. Baba Jaxal mais yàgg Jaxal comme la. kii rek moom ngi ñëw doon woo xaw ma nan lañ koy wax de Baye Ndiaye rek làmb la man man instant yii Baba Jaxal dama ko yërëm. dama ko Jaxal bëgguma ko jëlaat muy daanu. barki maam Seera Fall ma yaakaar. booy dama leen gën a dof si entraînement. état bi ma gis de moom ah xaw ma nag li ci biir mais li ma gis moom. <laughs> naka lay def ndànk de te fair play. non booy yàlla xam ne dama leen gën a dof si entraînement bu ma commencé dugg saal saa yàggul mbay jooju moo ma fayal ak sama grand usu bébé deux mois un mois sax laa si dem man suuf mooy sama lépp suuf si rek laay liggéey damay daw fii ba Malibu man seul du ma ànd ak ma penn du ma ma paate du ma ma sem man seul damay def ni daw ba Malika ba Malibu bay waaj a yéegi yëmbal man seul loin du billaay wallaay wa taala su ma ñëwee def samay soo fefte yu dëgër ku ko si mun na ko def ku ko siy def di nga daan caatu wan ku ko si dul def doo ma daan voilà. Baba Jaxal dama ko yërëm na gën a entraînement di ko wax gars yi nañ ko gën a jàppale. di sama xam di jàll tamit sama bayfaal bi boo déggee may la sama bayfaal maama Lamine. di nga jàll yaayam bu baax. jàmbaar la borom baax la man sama man foofu ñaari Baye Fall rek laa fam muy Siteu ak Mama Lamine man ñeneen ñu si des waaw ak tamit booy bi dafa sama tiset yi caam dafa gaañu wax ma sama Baye Fall dëgg ñaari Baye Fall am muy Mama Lamine ak Siteu dof bi ba taaliba Bamba kooku boo gisee mën a Siteu dof bi lu mu defaral fóode dafa rëy waaw kon noonu rek kon ni nga koy waxee sax di bëggee waa jàmm gën gi ñëpp nag bàyyi ma kenn suma ma limee rek damay jum wante sama waa ji maa ngi koy bëggee bu baax Babel billaay wallaay wa taala barki maam Seera Fall di ñaan tamit xam nga Babacar Sow Alaaji Seck dofu Siteu bi di la ñaan tam jàmm tam yéen ñu fa nekk ñëpp tam ngeen gën a góorgóorlu xam tamit lu leen war bu baax baax a baax gis ngeen temps nu mu taree bas wëse na suñu grand frère yu fa nekk ñëpp ñoo leen di bëggee bu baax wante xam nga di jaale tamit Waly Seck bu baax di ko jaale bu baax a baax a baax yaa mu génn àdduna yal na ko yàlla may xolam muñ li ko dal métti lool lool lool barki maam Seera Fall bu ma ko yëgee léegi kenn moom laa a xalaat yal na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko xolam muñ ko ñaanal yaayam yal na ko yàlla yërëm ko àjjana dafa ko mbooloo ñu mu fa fekk ak ñu ko fay fekk man mi sama papa dafa gaañ sama yaay laa fi desat wante lool yal na yàlla may xolam muñ bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay barki maam Seera Fall maa ngi sant Abdoulaye Omar sama DG bi ñang nomu ma dara barki maam Seera fa heure bu xëyee billaay walaay dafa may naan mbër sa am dama nga reeri sama DG bi ñag maa ngay bëggee bu baax baax a baax di tam sama benn jigéen fan yii moom may toppatoo bu baax penda chaque jour day yónni sama raq bi nekk am dama nga yóbbu ceer mu reer te day dëgër si man démb rek moo si mujj man dama koy maîtriser muñ ko barki maam Seera Fall maa ngay bëggee bu baax a baax a baax a baax di siyaar ñëpp di sant ñëpp di wax gars yi nañ ñëw <laughs> wallaay azim buñ mënul ñëw man ma dem si cour de jël si ku si mel ni Tidiane Faye waaw waaw bu ko nangoo na ñëw Jokal bu ko nangoo na ñëw non xam tax ma wóolu sama bopp du dara de sama ñaani waajur jantal maara hmm. ñu nekk ak man xam nañ kooku nu ma mel ak moom ak jàmbaar yi sama ginaaw di nangoo du sonn ak ñaani tu tànk yi billaay wallaay man ñi ñee sama gàllaaj mafia bii ngay gis nii billaay wallaay wa taalaay loo tax ma wóolu sama bopp gannaaw yàlla genant yàlla baax na. mbër kontaan naa la. billaay maa la gën a bég. Aïcha mu ngi noonu ah, nekk champion nag nekk ndaw vraiment na ko gars bàyyi xel. gaynde la nekk champion na ko gars yi jox combat ah, mu ngi noonu bokk ci làmb aussi tamit di leen jaajëfal di leen jox dig daje yeneen émission ci People 221 jaa ngeen jëf.